jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi lu def waxu luy ay di jàmbat mbokk yi ñaari accident ci lu matul ay bés juróom benn fukki nit faatu nañ ci saa si mbokk yi ndax jàpp ngeen ne lii jaadu na damay laaj rek mbokk yi ku xam wax ma ñu ne tali bi dafa xat lu la teree daw ndànk lu tax réew mi du ñu jàngee dara ci dara mbokki yi batalo joola fàtte ko léegi lu ñuy wax six kilo Kaffrine moo ne batalo joola lu ëpp junniy nit ak lu topp ñoo ca faatu coole bëri woon lool ñu jël ay matukaay ay fan yu néew lañ ca teg ju fàtte ko mbokk yi di surcharge oto yi nu mu leen neexee di daw nu mu leen neexee te kenn du wax mbokk yi matukaay bu ñu jël am ñu taxaw ne mënta nekk mënuma ko kenn mënu ko matukaay bu ñu jël ngir jàpp ne mën naa indi saafara ci lii am ay kuréel yu jóg taxaw jël en notage réew mi dakkal dem bi ak dikk bi ndax lan matukaay yi arrangé wu leen ndax arrangé na réew mi ndax arrangé na askan wi déedéet seen yoon newu ci seen yittey bopp moo leen fi bàyyi mbokk yi lu xew lu tax du ñu jàngee dara ci dara mbokk yi ñaari accident ci lu matul ay bés juróom benn fukki nit faatu ci ñu ne tali yi dañ ko war a def ñaari tali autoroute à bi ñaata nit fi faatu saa accident lu xew li ëpp ci accident yi càgganteeg doomu aadama lay doon mbokk waaw lii mat na waxtaane rawatina ci dëkk bu sell bii di Touba nag waaye mbokk yi li fi xew bërki démb ak bërkaati démb dafa war a dakk mbokk yi dem ci barab jàpp ne yaa ko moom kenn waru faa yàpp ba mu indi coow ci diggante ñoo xam ne ay taalibe lañ bokk dëkk bii bàyyiwuñu xel war may dëkk bi ba paaka génn fa am ku mu gaañ mbokk yi ndax lan fii maa fi moom maa fi war a yàpp mais fii ku fi moom mbokk yi bërki démb fii ngeen yokk paas yi ci seen coobare bopp boobu kenn yokkul gasoil ngeen dàq fukki dërëm indi fu waay wàcc cent franc te fu la neex ngeen di tourner kenn waxul lii lépp li ko waral mooy ñu yore responsabilité ci dëkk bi te war ko taxaw dañu ko talul mbokk yi loolu dafa war a dakk waru fee am na ñu réglementer transport bi ndax yéen a ngi seetlu oto yi fiy bàyyeekoo ñu duppee leen ay horreur ñuy jëm ci dëkk yi ñu wër ay oto yu warul def transport la yàpp ci biir yàpp ci marché-pied bi ci porte bagage bi ceeb dana ca nekk këriñ dana ca nekk soble dana ca nekk ay nit toog ca kaw mbokk yi ñëpp di ci teg seen bët kenn waxul bërki dem bu daanu na fii ci wetu rajo Touba Fall mbokk yi yàllaa ci def su droit lu tax dangu woonoo réglementé transport bi ci dëkk bu sell bi di Touba mbokk yi fu neex waay samp gaaraas oto bu la neex nga jël ko dugal ko ci biir circuit doon transporteur ndax kenn réglementé wu ko kum neex nga takk sa saret moo xam muy fas wala mbaam fu la neex ngay jaar xamoo sens interdit xamuloo dara ci code de la route ba pare say at néew lool boobu lii duñu ko lijjanti lu tax duñu ci taxaw mbokk yi lu tax ñiy xeexal transport bi du ñu xeex ci ñiy yëngu ci wàllu transport ñu gis ci seen bopp yow amoo embauchement yow amoo contrat amoo salaire bu baax amoo prise en charge amoo allocation familiale boo retraité mbaa nga tëlee jeex na boobu loolu mat a taxaw temm ci lijjanti loolu saa bu ñu laalee seen i intérêt coow li na kur waaye intérêt ñiy yëngu ci biir métier bi seen yoon newul ci ñoom li mat ta waxtaane lu tax du ngeen lijjanti koppar yi nga xam ne moom la ñuy dajale ci turu transport di ci jënd ay oto sax yuy def transport ñu fay dajalewaat ay koppar ci seen i lu tax du ngeen lijjanti koppar yooyu lu tax du ngeen lijjanti oto yiy bàyyeekoo ci dëkk bii bu fajar jotee te ku depart joxe ñaari junni lu tax du ngeen lijjanti koppar yooyu am lu la métti nag di dox doxu ñaxtu ak di grève sëriñ bi dàqal nañu ko moom képp ku fi nekk nag na xam ne baatu sëriñ bee la tënk bu dee da ngaa fipp jàpp ne beneen baat bu dul baatu sëriñ bee la tënk loolu sa digganteeg sëriñ bi la bu dee da ngaa jàpp ne warmaal kuréel goo bokk moo gën ci yow warmaal dëkk bu sell bii nga xam ne maas laa tax yu bëri ñu bàyyee la ko loolu sa affaire la ñi bëgg a liggéey tey jëfe njëgalal sëriñ bi nañ leen protéger daf fiy jeex di dakkal dem bi ak dikk bi di tere ñeneen ñi par force ku jël sa oto ne damay jëfe ndigalal sëriñ bi ñu joor la ay xeer yàq sa jumtukaay ba lépp taxaw loolu warta ne fii ci dëkk bi nañ jóg wax ci mu leer nañ ñu xam ne ku ko fi def xotti nga wër may dëkk bi te yoon dafa war a dal ci sa kaw mu wax nag ca ba muy teel waaye néeg ba jaan ji romb nga topp ca watit yooyu dóor ndox moom kenn du ko dëbb jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci UCAB FM FM